want. Jene sen sen, Rumi Venkat TV. jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di Rewmi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek convocation bi nga xamante ne daal dinañ koy fësal nag jagleel ko membre yu bureau assemblée nationale convoqué nañ leen nag niki tey jii ci àllarba ji yem ak ñeenti fan ci weeru septembre ci atum 2024 bu 17h jotee ci salle conférence bi nag lañ leen daal di convoqué ab réunion mu nekk mbir moo xamante ne rek ginnaaw sortie bi nga xamante ne kii Ousmane Sonko daal dina koy def moo waral rek ñu de convoquer convoqué bureau assemblée nationale après réunion d'urgence niki tey bu 17h joté ba minutes li nga motion de censure de censure du am lutax du am lutax rek euh, kaddu yu nu mel nak ñu koy yëkkati ndax ki di Ousmane Sonko rek dafa bëgg loi bi mu euh, laaj bi nga ak lépp lu mu ci mënti doon rek dinañu xam rek élimaanu jëwrin bu njëkk bi nag dina daal di tere rek ngir ñu voté boobu le motion de censure nga xamante rek ci article euh, bi nga xamante ne rek dinañu xool bu baax rek naka la yëf yi di placé boobu le loi di kaddu kii di Thierno Bocoum ba tey rek ci mabal assemblée nationale nag taxe yi nga xamante ne benn Bokk Yaakaar dinañ koy yëkkati ñoom nag dañoo daal di gis ni rek ñoom ñooy embryon bi ñoom ñooy lépp ndax nag nekk fukki fan fekk ñaar ci weeru septembre nag li nga xamante ne rek moom la ñuy wax nag moo di yooyu leen nit nekkatuñu nag ay député foofu ci assemblée nationale waaye ay embryon de résistance la ba tey ci wàllum xibaar ki nga xamante ne rek moom moo nekk monsieur le président de la république di Bassirou Diomaye Faye moom ci jëmee boppam rek lu ñeel réduction des comptes yi nag faw rek ñu door nag publication rapport yi nga xamante ne moom moo tukkee ci inspection générale d'État yi waaye nag warul protéger kenn di kat bi nga xamante ne kii di Birahim Seck bu Forum Civil daal dina koy yëkkati ba tey rek ci wàllum session parlementaire Guy Marius Sagna nag ndax dafay bloqué rek liggéey bi ginnaaw bu ñu gisee ne rek majorité parlementaire yu Benno Bokk Yaakaar dañoo yaakaar ne rek mën nañoo gàntal nag li nga xamante ne rek moom mooy boobule loi ginnaaw ñaari at a ngi nii lu toll ci ñaar fukki proposition ak ay résolution yoo xamante ne rek tegoon na ko ci commission d' enquête parlementaire ñu daal di koy bind nag ci ordre du jour bu parlementaire ngir nag ñu càmbaraat bu baax xoolaat yooyu dem motion de censure kii di Guy Marius Sagna nee na nag moom lu leer nañ la wax ndax nag amul lenn loo xamante rek dinañu ko waxtaane foofa ci assemblée nationale bu fekkee ne rek Benno Bokk Yaakaar ci seen jëmmi bopp rek dañoo lànk nag waxtaane yëf ci ñaar fukki proposition yi nga xamante rek tegoon bi moom enquête parlementaire ma ngay fàttali nag boobule liste tolloon na yoo pour saafara nak yëf yi la dal di koy tek ci commission d'enquête parlementaire bi nga xamantene mom moko déposer won déposé mu ñeel proposition enquête parlementaire bi nga xamantene ni ki fan ci wéru novembre 2022 la won mu proposer won li nga xamantene rek mom moy résolution ak création commission d'enquête parlementaire ci situation administrative ak financière bu poste yi beneen ba ca top nak ni ki 23 août 2023 ñeewoon nak mu créer won résolution ak création commission d'enquête parlementaire bi nga xamantene ne rek dafay daal di wax ci gal yi ak mbëkk mi ak gaal ga tojoon ca diwaan bu mag wakkaam ba fukki nit ak juróom-ñett rek dal ci ñàkk seen bakkan coowal Aliou Sall ak Guy Marius ñetteel bi nag mu nekk résolution création commission d' enquête parlementaire mi nga xamante ne rek dafa laajoon ab bilan fonctionnel euh, bu créé ba kii di Guy Marius Sagna ak Aliou Sall beneen bi nag 7 décembre 2023 la ñeel proposition résolution bi nga xamante ne rek ab création d' enquête parlementaire la ak chantier yi nga xamante ne rek ministre de l' enseignement supérieur daal na koy teg juróomeel bi nag moo ko proposition bi nga xamante ne rek dafa laaj ñu créer ay commission d' enquête parlementaire ci arriéré salaire yi nga xamante ne rek liggéeykatu feeraay amoon amoon nañu ko juróom-benneeli poñ bi nag nekkoon proposition solution yi nga xamante ne rek dafa bëggoon ñu créer ab enquête parlementaire xoolaat salaire yi ak ndàmpaay yi ak heure yi nga xamante ne rek ay heure supplémentaire la ci bopp ministère de l'intérieur juróom-ñaareeli pàcc bi nag nekkoon résolution bi nga xamante ne rek dafa daal di bootu ci création commission d'enquête parlementaire ak contrat yi nga xamante ne ay contrat direct lañ euh, ci liggéeykat yi ak ya nekkoon ca plateau technique ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi beneen ba ca topp nag mooy li nga xamante ne rek moom moo ñeel matériel yu hôpital yi bu Bakel ak centre diagnostic bu nga xamante ne rek ma nga ca centre yi régional bu Fatick ak ay fourniture matériel roulant ak ay ambulance ak li nga xamante ne rek moom la bërëbu fajukaay yi nag daal di soxla woon ci xayma mu nekkoon lu toll ci 71 315 milliards. 440 944 euh, francs CFA beneen ba ci top nak nee na niki 11 décembre la woon 2023 ci proposition résolution bi nga xamante rek mom mo ñël création commission d'enquête parlementaire ngir ñu indi nak ay lera ci autorisation permis ak exploitation bi nga xamante ñu ngi koy def jamono bi te di président de la république Macky Sall nekkon nak jamono jooj ci bop nguur gi benen ba ci top nak nee 18 décembre la woon 2023 ñël proposition résolution bi nga xamante rek dafa daal di laaj ñu créé waat commission d' enquête parlementaire bu am solo waaye nag lépp rek ngir xool xaalisu jàmbaar yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci atum 1991 ginnaaw bu ñu participé woon nag ci guerre bu golfe beneen bi ci topp nag. beneen bi ci topp nag nee na nekk 6 mai la woon 2024 ginnaaw proposition bi nga xamante ne rek daal di woon na koy def nag ngir ñu créé ab commission d' enquête parlementaire boo xamante ne dafay daal di àddu wax ci suukar bi nga xamante ne rek ñu ngi koy def nag. nekk ci produit nido yi ak ak li nga xamante ne moom mooy jiw bi ak subvention bi ci anam bi nga xamante ne rek doon nañ ñoom ñooy baykat yi beneen ba ca topp nag mu ñeel nag li nga xamante rek moom mooy proposition résolution bi nga xamante rek moom moo sukkandiku woon ci création boobu commission d' parlementaire nga xamante ne ab cadeau fiscal la bu toll woon ci 136 milliards de francs CFA yoo xam ne gouvernement bu Sénégal mayoon na ko Sabodala Gold Gold ci opération SGO bi nga xamante ne rek filiale groupe Edavour Mining la coopération ci atum 2022 nee na proposition bi nag ni ki mai 2024 ginnaaw bu mu sàkkoo indi ay leeral ci création commission d' autorisé nag enseignant vacataires ci université publique fuk que ak juroom ben bi de ak juroom ben proposition bi nak ñeel résolution ak création commission d'enquête parlementaire ci programme xey ndaw yi fuk ak juroom ben proposition résolution bi nga xamantene rek ci création commission d'enquête parlementaire ci anam bi nga xamantene rek mom lañu ñu hôtel King fat Place ci atum 2012 japp 2023. fukk ak juróom-ñaareeli poñ bi nag résolution bi nga xamante ne daal di woon na koy taxawal ci boobule commission ci situation ak liggéeykat yu feeraay yi fukk ak juróom-ñetteeli proposition bi nag mu ñeel création commission d' enquête parlementaire ci situation bu Falema beneen bi ci topp nag nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août ci atum 2024 defoon na proposition ngir ñu xoolaat bu baax création commission d' enquête parlementaire bu protection des femmes ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk nag di liggéey rawatina soxna yi nga xamante faral di wan lor ci seen i liggéeykat ñaar fukkeel bi nag mu nekkoon ki 29 août proposition résolution bi nga xamante ne ab création commission d' parlementaire la ci situation centre d' yi di kaddu yi kii di Guy Marius Sagna jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen xibaar